mbokk Sénégal ñu ngi di ziare ci weeru carême bi suñ bokk chrétien yi di ziare tamit ci weeru Ramadan Karim di am mbégte rek ci ñëwaat waxtu wi waxtaan ak yéen ci li nga xam ne nii moom laa fas yéene di leen laaj muy euh, baatu euh, seen baat pour mën a jiite réew mi comme li ma leen ko waxee nag <clears throat> ay liggéeykat lañ. dañu am lu ñu metti dañ ñu humilier seetaan dañ ñu xeeb loolu rek moo tax mu dugg ci élection yi bu doon tey sama njariñu bopp rek duma ci dugg dem toog def ni ñëpp moo gën a yomb waaye nag bu ci duggee su ma sañoon sama mbokk yi nga xam ne nii ñooy liggéeykat yi ci ñëpp ñu jóg jël mbir mi def ko seen mbiru bopp bañ a xaar ma woo leen bañ a xaar ma wax cee kenn loolu bu ñu ko defee incha allah danañ jóge ci coono yii ñu nekk ba nga xam ne ni ëllëg danañ xam ne liggéeykat moo mën a yorum réew. nit ku ne day bëgg boppam xam ngeen ne man soo ma ne leen créer naa emploi mën naa créer emploi en tant que état waruñ ci am xel yaar ndax en tant que privé damaa créer emploi kon nag yow boo mënta créer emploi ci sa ci li nga yor lu dul sa sa bon wala say chauffeur wala say emploi personnel. boo ñu wax ne dañuy créer emploi mën nañ koo nangu de waaye li gënoon nag mooy ñu xool nit ki jaar-jaaram ci man-manam ak lim jotagut a def bu ko defee ba noppi rek dana tax ñu gën ko mën a gëm li ci des nag mooy man euh, créer emploi rek mooy sama euh, spécialiste yéen xam ngeen ne euh, créer emploi secteur privé moo koy def l'état lim mën a wax mooy nan lay def pour jàppale entreprise ñu créer emploi man na créer sama création emploi dama ko euh, jiital ci euh, jàppale baykat yi ñëpp xam nañ ne baykat euh, sàmmkat nappkat ci ba ba muy jënd matière première ba ba ñuy transformer ba ba ñuy jaay ba ba ñuy exporter lépp ay création d'emploi la te benn secteur rek ma jox leen exemple muy textile textile mu am cinq cent milliards yoo xam ne nii chaque année mu dem bitim réew te ñu mënoon nañ ko créer fii ak suñu artisan yi euh, ak xarala bi nga xam ne nii un million d'emploi mën nañ koo créer ci cinq ans yi ci textile rek yeneen secteurs yi tamit muy mbay mi muy industrie yi ay création d'emploi yu baree bari la ah loolu nag mooy sama yéene man ni ma ko gisee mooy ci cinq yi cinq millions d'emplois mën nañ ko cee créer te loolu secteur privé bi ngay fexe ba lépp loo xam ne nii bitim réew lay jóge ñu defaree ko fii te fexe tamit bay exporté ndax am na ay réew yu ndaw yu tuuti yu mel ne ay îles Maurice yu Éthiopie ci loolu lañ def euh, basé wu ci seen euh, consommation locale ak exportation leneen li ci des mooy xam naa ne nit ñi loo leen wax te waxoon nooy wàññi dund bi wàññi dund bi nag du fait que ñun dañoo nekk euh, coalition boo xam ne nii ànd nawle ànd liggéey ñun liggéey rek la amuñ parti amuñ ay pression yoo xam ne nii da nga may nommer ministre dangay def fii da ngay créer ay directeur da ngay def yëpp ñun li ñuy def mooy wàññi état bi du ni muy dundee bu baax fexe ba économiser yi ci lu mat un milliard un milliard soo demee ci lu jëm ci agence yi nga xam ne nii dañoo bari surtout agence yi nga xam ne dañuy wax ne dañuy jàppale secteur privé te daanaka seen fonctionnement moo ëpp doole la ñuy jàppale secteur privé bàyyi secteur privé bi jàppale euh, organisation professionnelle yi ak chambre consulaire yi ñoom ñu jël jàppale boobu jàppale leen bu ñu leen jàppalee kon la ngay économiser foofu mën nga ko dugal ci dund bi dund bi nag du subvention buy continuer mais da nga koy def benn at ñaari at maximum fekk yow développé nga mbay mi càmm gi ak nat ak napp gi ak artisan artisan artisan artisan yi développé leen loolu boo ci créer emploi ba kenn ku ne am revenu yaakaar naa Sénégal dana fexe ba nga xam ni sax day woo ci sous région yi ay euh, ay emploi yoo xam day ñëw pour mu mën a def production yi parce que defar ko dëkk européen yi ñoo dem ba nga xam ne ni ñoom ñi ngi wuti main d'œuvre feneen ñun ñu am suuf am naaj am consommation Afrique wër ñu industrialisation bariwu fi kon ñun ñoo gën a placé pour créer ay emploi yu baree bari bari ci lu ci lu dul yàlla